Euh, li mu wax ne li Macky sàll bëgg warut a mën a ne dañu ci ànd moom la ñuy wax fii booba ba tey fii ci siège président Pape Diop depuis le front euh, démocratique et sociale de résistance nationale depuis l'initiative pour des élections démocratiques li nu ma a wax lépp ci ne ni ñuy waajale élection Sénégal waajaluñu ko ci élection bu mën a tegu ci yoon waaye dañ koy waajal ci mën a foqati Euh, élection sañ-sañu sénégal yi loolu euh, te biwunu ko dara dara dara dara teggiwu ci teggikuwu ci yeneen ñi ñi nga xam ne sax bokk nañu ci élection bi boobu gis-gis euh, te teqale wuñu teqalikoo ak boobu gis-gis noonu lañ ko gisee alors kon bépp xeex boo xam ne maanaam jaadu na war nañ koo def pour Macky sàll dellu ci ginnaaw ñun bu ñu ci wooyee pare nañ ci waaye nag dana wax ne élection bi nag moom it mënee su ko bàyyi ginnaaw parce que nit ñi dañoo gëm ne dinañu mën a lijjanti seen diggante ak Macky Sall ci élection ci wote bii di ñëw ku ne yaa ngi nàmm saw carte